Heavy Mess.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 jara lañu ne moo fa bett jëkkëram muy nelaw ba yendoor mu fab ab kuur dóor ko ko ci bopp ba bopp bi tooj mu jëlee ci gaañu gaañu bu mitti waa ji bi ñu ko yóbboo hôpital ay simili lañ ci teg mu ñàkk bakkanam ñaawteef boobu ndaw si def nag nee ñu mu ko def booru 23 heures fekk boobu jëkkër ji dafa yendoo woon a liggéey ci ñëw di noppalu ci biir néegam bi loolu amee nag gendarmerie bu xosanto ubbi nañ ci ab lanket def jara di ndaw si def njombe si nag am fanweeri at ak ñeent nee ñu àndul woon ak xelam te loolu nag li koy firndeel mooy ndaw si ci boppam yàgg nañ ko yóbbu ca Tambacounda muy dem ay rendez-vous ngir ab sëriñ di ko faaj ci ay way ndaw si nag yoon mujj na koo teg loxo ma ne mbaa article cinquante du ko seetal moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax yàgg nañu ko wax de réew mu mel ni rido may ko fu waay faqee dugg ma ne lu ne mën na faa am laa wax division spéciale de cybersécurité ñu naan leen DSC ñoo teg fanweeri nit ak ñett ñoom ñëpp nag di ay nigérien di ay cybercriminel ñi def lu ni mel nag mooy Heleman Ali Kandji yi fanweer ak ñetti hackers yooyu ñoom ñëpp di ay nigérien ñu ngi leen tegee loxo ca Almadi bi ñu leen tegee loxo nag ci opération boobu police DSC fekk nañ ci ñoom ay matériel yu takku ay ordinateur ay téléphone portable ak yeneeni document fi mu ne ñoom ñëpp ñu ngi leen garde à di leen toppee ay chef d'accusation yu bëri waaye geng boobu nee na ci li ñu doon gën a yëngu mooy li ñu naan escroquerie en ligne bari na ci réew mi de li tax ñu teg leen loxo nag mooy ab collaboration bu OCRTIS ak GCDEV OCRTIS mi nga xam ne ci liñ ngeen gën a xamee mooy wàllum trafic de drogue ñoom daal ñoo constaté ne am na ab gang bu nekk ca Almadi ci ab kër naka noonu ci lañ saisiré DC DC daal di fay def de sant ñoom ñëpp ñu daal di leen teg loxo <laughs> waaw góore waay moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca affaire Jolof romb na doy waar ab chauffeur daal boo am ay jabar tubaab naan ko polygam la fa ab soxna su am jëkkër tuumaal ne daf koo violé pëtëlaw affaire jolof nag mu ngi nekk ca département bu Linguère ab chauffeur buy woo ci turu aña am juróom benn fukki at ak ñaar la soxna su am jëkkër te jëkkëram ja nekk bitim réew tuumaal ne moo ko violé ndaw si nag nee na chauffeur si daf ko daal ca yoon bi relier siin ab ak Café Jolof fekk booba mu ngi yor 4-4 nekkoon na ñëw mu yóbbaale ko ndaw si nee na mu dal di dugg ci woto bi ndaw si ne bi ñu dawalee tuuti rek ci la ko safoor tàmbalee dragué di ko wax ay waxi naq sa xandang waaye ndaw si ne mu lànk si la safoor bi dawalee oto bi ba ci biir àll bi dal di koy def li mu koy def ndaw si nag bi mu dellu see ci biir kër gi ñemewu ko nettali kenn ndax buggul woon sëyam yëngu waaye bi ñu dawalee juróom benn weer ndaw si dafa commencé présenté ay signe ay signe yi ëmb bi mu demee nag ba yëf feeñ ci la kon nettali ñamu dëkkal naka noonu ci la ñu porte plainte chauffeur ñu dal di koy teg loxo chauffeur nag bi mu ñëwee ba ci kanamu yoon nee na dëgg la bis boobu yóbbu na ndaw si waaye nag li ndaw si wax yépp dara amu ci may laaj nag lu am may laaj nag lu am ndax réew mi moom léegi doy na waar mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon yeneen xibaaru buzz